bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa ma callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahuma callimna ma yanfacuna wanfaanaa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien ba mag bi di Bachiru Cissé mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa bokk sant yàlla buur ba ñu may fanaanug jàmm ñu ñaan ko yal nañu yàlla may këndaluk jàmm amin ya rabbal alamin ndax ñaari kilima yi ak jàmm jës nekk xéwal ba ca nekk moo ko yore moo ko moom kon ci moom lañ ko war a ñaan ba tax na suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu baaxee ñu ne képp ku yàlla xéewalal xéewalu nelaw ben ko def ci jàmm boo yeewoo danga war a yàlla nga war a delloo yàlla njukkal sant yàlla buur bi tabaraka wa ndegem moom moo la may nga nelaw ci biir nelaw bi mu am ñam ci faat nelaw bam la may nga nelaw am na ñu mu dogal ci nelaw woowu ñu defee ko ci anam bi wutik nanka defee ndax bokk na ci màndargay nelaw ya yàlla di roof doomu aadama yi ñii daleen di may nelawu jayaxu nelawin bi nga xamante ne am na ñu koy defee ci singéem dañuy nelaw nelaw bu yemamaay ñoom jarut ñuy waajalal seen bopp di tidd ci kaw lal ñoom jaruñu ñuy waajal seen bopp ñu di ko defee comme nañ ko tàmmee waaw ñoom bu ñu jayaxoo rek baax na bu ñu singimee rek baax na waaw bu ñu jayaxoo ba waaw léeg-léegi nga gis ñoo xamante ne niñ koy defee macha allah diggam yow yàlla may na la nga mun na nelaw nelaw bu doy waaw jëfandikoo anam yañ koy defee kon yonent bi nee na bu la yàlla delloowee sa ruux ba nga yëg ne yaa ngi dund boo noppee danga war a sant yàlla sant yàlla yooyu nag mooy danga war a wax alhamdulillahi alladi mboolum xeetu cant yu kawe yi nañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ne axyaana moo ma dundal baadama amaatana gannaaw bu mu dogalee sama jëmm ji dee bu ndaw te mooy nelaw waaye nag wa ilayhi nushur ci moom yàlla lay dellu keroog bu ma noppee dund ci kaw suuf si ba tax na léeg léegi ñuy dégg baat ju nga xamante ne baat bu dëggul la ñu ne diw sangam faatu na dinañ ko jébbal boromam waxtuy sangam waaw kañ dinañ ko jébbal boromam waaw dinañ ko jébbal boromam fii duñu tudd dinañ ko jébbal waa réewam dinañ ko jébbal waa këram walla waa dëkkam wala kuréel bu mu bokk déedéet ñëpp dañuy effacé wu waaw turu ya xamee jëmm jooju kuréel ya ñu xamee jëmm jooju dañuy effacer lépp ñu indi turu kenn kot mooy boromam ndax kookoo fi sës anam bu doomu aadama boobu mel ci waxtu woowee boromam dong moo ko soxal moo ko soxla boromam moo ko soxla ci anam boobu mu nekkee keneen ku dut boromam boo ko soxla après dalay lor doo ko du sax soxla sax waaw doo ko du sax soxla ku koy géema soxlaal sa bopp après dalay lor ndax doo mën a nekk ak moom doo mën a dikk ak moom waaw du la wittali ci dara yow ay nekk di sonn ku ko weddi laajal ñaari doomu aadama yu njëkk a tuur bakkanu moromam ci kaw suuf si ñaari doomu aadama ya njëkk tuur bakkanu doomu aadama ci kaw suuf si laaj leen xaabil ak xaabil ba keneen ki reyee moromam mu yónni ko di ko dang dangeeg moom di dem ak moom mu sonn lool yàlla teg ko nattu ju toll ni kenn mënu koo nettale ba ko yàlla di waaja a lay yónnee ñaari baaxoñ yaa ñëw ci kanamam fekk sonn na lottu na xamul nam koy def amul xel gaspax suul ko yàlla daal di wàccee ñaari baaxoñ ci yiir yërmandem ñi ñëw jàkkarlook jëmm jooju rey mbokkam mu doon ku njëkk ku tuur bakkan ci kaw suuf si ci la ko iblis dugge la ko seytaane duggee mu jaarale ko ci jigéen ba tax mu faat bakkanu mbokkam buur yàlla natt ko fu muy dem yenu mbokkam njëruñu ko dara mu sonn ci yenu beeg yëkkati beeg tëralin beeg di jëm moom fu ne sonn ci benn tot buur yàlla nar kaa mu daldi ko baaxe mu wàcceel ko ñaari baaxoñ ñooñu ñëw ci kanamam daldi jëfandikoo lañu naan xeex ba keneen ki daldi niiwal doole moroomam ba mu daldi ko faat mu waxi pax ba mu xóot daldi suul moroomu baaxoñ boobu noonu mu toog di seetaan ca la ko yàlla roof xel bu toll nii lu tee nga def sa mbokk bi comme la baaxoñ bi def moroomam ci noonu la ko waajale mu daldi gaspax gas mu xuut mu daldi ko ci tiral kon foofu la xam-xamu suul doomu aadama gane see àddina kon jébbal na ko boromam delloo na ko boromam kon yow doomu aadama jamono bi nga dundee bi génn àddina duñ ne dinañ ko jébbal wuy juróom bu góor wala wuy juróom bu jigéen wala soxnaam wala borom kiram walla sëriñam dañ naan dinañ ko jébbal boromam ba tax na njeexantalu adkaaru istixaasa min an naw danga naan alhamdulillahi alladi mboolem xeetu cant yi kawe ñeel nañu buur bi ndax mooy buur bi nga xamante ne axyaana moo ma dundal baadama amaate na gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw te mooy nelaw waaye nag wa ilayhi nushur ci moom yàlla la ñuy dem ximbile ko ci moom lañuy dem dekki jee keroog bu ñu nelawee nelaw bu mag bi nga xamante ne mooy nelaw wi dee keroog bu ñuy ximbaliku duñu ñu ci kenn wala duñu ñu mun a ximbaliku fenn fu dul fa moom jalla wa ala kon yow jullit bi lii la la yonent bi dénk comme ñaan ba nga war a ñaan jamono ba la yàlla may xéewal ju toll ni nga nelaw boo yeewoo li nga war a wax yal nañu ko yàlla man loo ñu di ko delloo njukkal waaye di ko sant saa su saa yi ñu yeewoo nelaw ci waxtu wi beneen xéewal bi mooy xéewalu julli fajar bi nga xamante ne la ci yonent bi wax sallallahu alayhi ca malaaka yay seede jullit ñi jamono bu ñuy joxe waxtu yi fajar ci jàkk yi wala ci jumaa yi yàlla di leen laaj fu ngeen jógee ñu ne ñu ngi jógee ci suuf yàlla moo leen gën a xam fa ñu jógee ak lañ fa nekkee ak ñañ fa bàyyi ak ñooñu nañ fa nekkee ñu ne yàlla ne ñu ngi jógee ci suuf yàlla nu ngeen bàyyee sama jaami ñu ne ko bañ doon ñëw ñoo ngi fekk sa jaami ñu ngi doon julli waaye bañ fa doon bàyyeekoo tamit ñu ngi leen bàyyi ñu ngi doon julli kon yow mi fekkee waxtu julli yi ci jàkk yi malayka yi di la seede fa yàlla na nga am yaakaar bu toll ni keroog bés pénc buñ la piisali say jëf bañ ci boole seede ya malayka yi di seede sa teewaayu jàkk xamal ne na nga am yaakaar ne yàlla dina la gërëm bi tàbbil la ci minal muflihin yal nañu yàlla boole ci way texi ñi amin ya rabbal alamin mbokk yi Rewmi FM 97.5 bi léegi ñu ngi wéyandik yéen ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu yi yéen a ngi fàttaliku ñu ngi yemoon ak yéen ca suratul munafiqun suratul munafiqun bi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala mu doon baaxee yenent bi sallallahu alayhi wa ci anam bi nga xamante ne mooy nekkinu lenn ci naafiq yi naafiq ya nga xamante ne lay seen taxawaay ci penc bi mooy la nga xamante ne mooy lépp luy lor jullit ñi wala lépp lu leen di échec loo wala lépp loo xamante ne dinañu am defet ci kanamu ña nga xamante ne ñooy jullit ñi su ko defee jullit ñi daal lépp luy tax ñu am defet ci loolu lañuy dox ci loolu la naafiq yi di dox ci loolu la naafiq yi di taxawee mu doon taxawaay joo xamante ne fépp foo ko natt weesu na ko waaye buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi nii di baaxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melokaanu naafiq yooyu ñu nekkee anam wi nga xamante ne foo ko natt weesu na ko ci doyadi waaw la ñuy wax ak la ñuy jëf ak la ñu meloog ndegem buur yàlla tabaraka wa taala mooy ki ko xam mooy ki ko baaxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen a ngi fàttaliku démb ñu ngi yemoon ak yéen fa nga xamante ne mooy lan naafiqi wax seen mbokk yi ñu di ko wax képp ku nga xamante ne moo ngi bëgg a babbeeku dem wuyu la yonent bi di woote ak campagne bi nga xamante ne naafiqi dañoo bañ képp ku nara wuyu la yonent bi di woote sallallahu alayhi wa gàllankoor ba naafiq di gàllankoor képp ku nara dem ci adhéré ci parti islam ba yonent bi porté naafiq yi seen comportement yéen a ngi fàttaliku démb ñun doon wéttalantik yéen ci anam yooyee ñu ngi yemoon ak yéen ci aaya ba nga xamante ne bokk na ci seen kàddu lañ doon wax ne yaquluuna dañ doon wax ne la in rajana bu ñu delloo ilal madinati ca dëkk ba ñu naan madina la yuxrijanna aadu min ahal azal dinañu génne suñu biir ñu tedd ñi ñu tege ni waaye ñu jël ñu doye di ñi ñu tegeleen weneen wet wax ñu ne ñoom lañu tabbal seen bopp garaat bu kawe bi yenent bi ak ñu mu àndal di saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ñooñu lañu colomotif ñooñu la ñu tabal étiquette ñu doyadi ñi yàlla daal tontu naafiq yi yàlla buur bi tabaraka wa taala la ci xolu doomu aadama yi yàlla ma xam la nekk ci xolu naafiq yi buur yàlla ne walillahi l izzatu ñeel yàlla mboolem kawe yu mboolem noblesse yu kawe mboolem xeetu maqaama yu kawe yi yàlla kawe na te mooy buur bu rango noblesse yi nga xamante ne keneen kudut moom yoroo ko amoo ko te doo ko musa am waaw yàlla dong ko yore noblesse yu kawe yi ñeel na yàlla wali rasulihi ak yonenteem mi muminin ak mboolem way gëm yàlla ñi walakin li fi nekk mooy almunaafiquun aw almunaafiqiin way gëm yàlla ñi de ñoo yore la nga xamante ne mooy noblesse yu kawe yi waaye lu fi nekk naafiq yi de ñoom yàlla dañ leen xañ xam-xam woowu moo tax mu ne walakin al munaafiqiin waaye li fi nekk naafiq yi de laa yaalamuun ñoom xamuñu loolu xamuñu ne yàlla yore noblesse yu kawe yi ak yonenteem bi te mu tabal ko way gëm yàlla ñi kon yow mi gëm yàlla topp ndigle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ne noblesse xeetu noblesse yu kawe yi xëytu diplomatie yu kawe ya yàlla tabal yonent bi ak way gëm yàlla ñi bu dee teg nga sa tànk fa yonent bi rëdd te nga defee ko comme num ko diglee bokk nga ci ña yàlla tabal xiitu garaat yu kawe yooyu ci sahaaba yonentu yi ridwanullahi alayhim ajmain waaw ne walakin al munafiqin laa yaalamuun waaw kuréelu ñoom xamuñu loolu yàlla daldi wax yonent bi sallallahu alayhi wa aaya ba ñu nara sëf ci aaya ba ñu jàng nii léegi te mooy aaya bu bees bi ci waxtaanu bés ni ki tey yàlla ne yonent bi ne yaa ayyuha alladina aamanu laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum an dikrillah wa man yafaalu dalika fa ulaika humul xaasiruun wanfiquu mimma razaqnaakum min qabl an yaatiya ahdakum almawt fa yaquula rabbi lawlaa axartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min alsalihin walan yuaxira nafsan ida jaa ajaluha wallahu xabirun bima taamaluun mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak sen njaboot buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi nii di baaxe yonent bi ne ko waxal ma way gëm yàlla ñi ne bu ñu mel ni naafiq waxal ma woy gëm yàlla ñama baaxee alal ba ne gaññ bu ñu mel ni naafiq ñi waxal ma woy gëm yàlla ñama baaxe doom bu ñu mel ni naafiq ñi cofeelu alal bu mu tax a jaar sama diggante sa bu mu tax a jaar seen digganteeg man cofeel ba ñu am seeni alal bu tax ñu bañ ma jaamu cofeel ba ñu am ci seeni alal bu jaar seen digganteg ñu di ma jaamu cofeel ba ñu am ci seeni alal bu mu tax a jaar sama digganteg la ma leen tegtal ne nañ ko def ci alal woowee waxal ma wéy yàlla ñi ne cofeel ba ñu am ci seeni doom yi bu mu tax ñu bañ leen jàngal alquraan ak sa njàngale bi cofeel bi ñu am ci seeni doom yi bu mu tax ñu bañ leen yóbbu ci daara yi rawatina ñu ci jamono yi vacances nga jël sa doom yóbbu ko ci fi nga xamante ne du fa jëlee dara lu dut nagar wala fecc ak way ak li ni mel muytu ko yow jullit bi yàlla ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa tulhikum bum leen alak bum leen sànk amwaalukum seen alal yama leen dénk bum leen sànk alal yama leen dénk bum leen alak wala awlaadukum seen doom yi buñ leen sànk te buñ leen alak waaw sa doom bum la sànk te bum la alak sa alal ba nga yore bum la sànk te bum la alak yàlla mu ngi nii di la jox avertissement di la alerte yaa ayyuhalladina amanu yow mi bokk ci daairatul imaan boole nga sa bopp ci ñu gëm yàlla yàlla ne la laa tulhikum bum leen alak bum leen sànk amwaalukum seen alal yi ngeen denc ci banque yeeg ci koofur foore bum leen alak nangeen ko jëfandikoo ci fa yàlla sopp te mu doon fu mu gërëm dangeen ko jëfandikoo fu yonent bi tegtal wala awlaadukum seen doom yi bum leen sànq buñ leen alak jëlal sa doom ñu ngi ci vacances yóbbu ko ci daaray vacances mu dem mu géem a gëstu alwom ci diineem daaray vacances yaa ngi fi ñu ne xoos jëlal sa doom fayal ko mu dem jàngi diineem ci daaray vacances bu école tijjee mu boole ko njàngum nasaraan ba mu nekkee mu am ñaari bénéfice saa yoo fi jógee ko mu mun a tàllal loxom yàlla ne allahumma ixfir li waalidi allahumma ixfir lahu warhamuhu bu dee yéen ñaar yéena fi jógee ko ndoor ah ba léegi mu tàllal loxom rek ne allahumma ixfir li wali waaliday allahumma ixfir lahuma warhamuhuma yàlla nga jéggal sama ñaari woyjuri yang leen yërëm yàlla nga def seen teraay mu doon noflaay ci ñoom yang leen jéggal te dottil di leen wàccel yirmande ñaan boobu sa doom bi di ñaan du ko xamee ci feccukaay du du ko jànge ci woyukaay fu ñuy woye duñ fa jàngale lii fu ñuy feccee duñ fa jàngale ñaan bi kon képp koo xamante ne wuyjur nga boo bëggee bés bu sa bët laxoo bés bu sa jëmm bi laxoo sa doom di la ñaanal yóbbu ko fu muy jàngee lam la war a ñaanal waaye nga bàyyi fi sa doom yóbbu ko fu muy jànge lam la war a ñaanal nga jóge koo fi ah sa doom bi nekk ci lan ko bàyyi mbugal bi dañ la koy dottil kon yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla laa tulhikum bu mu leen alak amwaalukum seen alal yama leen dink na ngeen ci saraxe na ngeen ci génnee azak wala awlaadukum seen doom yi buñ leen sànq buñ leen alak nañ leen yóbbu fu ñuy jànge alquran ak fu ñuy jànge diine ñu xam seen diine moo tax yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu yéen ñu gëm yàlla laa tulhikum bu mu leen sànq bu mu leen alak amwaalukum seen alali wala awlaadukum ak seen doom yi an dikrillah ci tudd yàlla ci fàttaliku yàlla ci topp yàlla ci lëm leen diggal te yonent bi jàngal leen ko seen alal seen doom yi bu ñu leen tax a jaar ah seen digganteeg looloo seen alal yi bu mun leen tax a jaar seen digganteeg loole yàlla ne nag wa man yafaalu daalika képp ku nangoo def loolu ba sa doom sànk la sa alal sànk la yàlla ne ah ku sa bopp sa alal mu sànk nga bàyyee sa bopp sa doom mu sànk la yàlla ne wa man yafaalu daalika képp ku def loolee ba sa alal sànk sa doom sànk la yàlla ne fa ulaika humul xaasiruun ñooñu ñooy way pertaange ñi ñoo ñoo perte yàlla la alal ne nanka def ci la ma bëgg nga ne non dama koy moyee yàlla perte nga yàlla may la doom ne la jëlal doom bi teg ko mu xam yàlla xam yonent xam diineem nga ne deet yàlla sama doom bi dama koy feccaloo dama koy wayloo perte nga moo tax yàlla ne képp ku du moyu tegtal yamala tegtal nii a ah, fa ulaika humul xaasirun ñoo ñoo médité pertange boo xamante ne bés penc amuñu dara lañ fay fekk yàlla ne kon balaa bés boobee ñaareelu avertissement baa ngi ni wan wanfiqu na ngeen joxe wan wanfiqu na ngeen saraxe wanfiqu na ngeen génnee azakay alal ba ma leen dénk wanfiqu na ngeen dépensé na ngeen financé mimma ci li nga xamante ne mbokk yi nañ leen taxaw ci aaya bi mimma la yàlla wax mimma astuut ca la ma leen wursagal wan wanfiqu na ngeen dépensé wan fiku na ngeen financé mimma ci li nga xamante ne razaqnaakum wursagal naa leen ko lu jiitu min qabli an yaatiya ahadakumul mawtu dee di dikkee kenn ci yéen su ko defee nga xam ne alal bi njëriñutu la amatoo njëriñ ci alal alal bi amul njëriñ ci yow ay garab yu weexat nga ciy naan ay pikiir ak ay puso moom lañuy ñuy say alal léegi alal bi lekkatuloo ci lu saf suukar lekkatuloo ci lu saf xorom lekkatuloo ci dara oto sax ah <laughs> léegi amatoo envie pour dawal oto yàlla ne na ngeen dépensoo ca la ma leen lu jiitu min qabli an yaati ahadakumul mawt lu jiitu dee di dikkee kenn ci yéen balaa dee di ñëw nag feebar la yàlla njëkka roof jëmm jooju mu doyal lépp la mu yore woon mu suur ko dootu ko njariñ waaw bu demee ba xam ne léegi dara desut lu dut dajeg boromam kàddu ba muy wax mooy fa yaquulu rabbi danaan yow sama borom lawlaa axartani moo ne yàlla lu tee nga may ma lu tee nga may ma waaw nga yiixee ma ila ajalin qarib waxtu su ndaw waaw waxtu su tuuti rekk waaw du wax ma julli du wax ma woor du wax ma dem aji màkka danaan fa asaddaqa ma saraxe ma génnee azaka ma jokk mbokk ci alal bi ma génnee azaka ci alal bi ma saraxe ci alal bi moo tax mu ne fa asaddaqa ma saraxe wa akun ma nekk min saalihin ci way rafetal ni léegi doomu aadama ba alal alak ba alal jaar digganteem ak jaamu yàlla yàlla ne la na nga laata dee di la dikke déggoo ko jëfewoo ko melawoo ko faalewuloo ko waaye la gaay di wax ba caaxaan faaxee ba dégg taxaw nga naan yàlla lu te nga yiixee ma may ma dig bu ndaw ma saraxe xoolal jaam bi ñaan na yàlla yiixee ko ñaareel bi mu ne ko dig ndaw dig bu tuuti ñetteel bi mu ne ko ma saraxe ñeenteel wi mu ne ko ma bokk ci way rafetal ñi jaam bi ñaan na yàlla quatre position ñaan yàlla ñeenti melokaan yàlla yéexee ma waxtu su tuuti ma saraxe ma bokk ci way rafetal te moo ne yàlla wax na la lii avant waaraatekat yi ñoo ngi la koy wax avant ustaas yeeg a imma yeeg boroom xam yi ñuy tafsir Qur'an wax nañ la ko avant nga lànk bi tëdd si naaj bi nga ne ñii dañoo yore seeni téere ba ñu yëléeb ak rencontration bi ñuy rencontre n'importe quoi nga jël wax ji taxañ teg wet ba léegi nag yaa ngi ni dikku dund réellement gis nga ko aynul yaqin gis nga ko ak sa bët ci lu dut naxe mbaay gis nga ko ci lu déggu léegi nag amoo dara looy wax lu doon rabbi sama boroom la xartani lu tee nga yiixee ma ila ajalin qarib lu doon waxtu su néew yàlla ne waaw après bu ma la yiixee bi waxtu su néew looy def mu naan fa asaddaqa ma saraxe yàlla ne fii sa saraxe awma ci soxla waa akun min as ma bokk ci woy rafetal ñi kon xamoon nga ne bokkoo woon ci woy rafetal ñi bokkoo woon ci woy rafetal ñi ba tax na nga ne yàlla tey may ma waxtu su naa waxtu su niiw waxtu su tuuti ma saraxe ma bokk ci woy rafetal ñi yàlla daal di tontu jaam jooju ne ko walla deeti yàlla yu axirullahu nafsan muy yiixee benn bakken isa jaa ajaluha bu waxtu ba ma dëxalanteg bakken jooju ba jotee du ma yéexee virgule du ma avancé virgule ndax yàlla mooy buur bi nga xamante ne wallaahu yàlla mooy buur xabiirun moo peeg moo supervisé bi maa la nga xamante ne taamaluun yéen a ngi koy def yàlla supervisé na sa lépp xam na sa lépp waxtu su néew jooju nga koy ñaan bu la ko yéexee tamit bu la ko mayee da ngay dellu ci kàccoor ba nga nekk rek yàlla xam na loolu waaw dangaa gis ne fu ne nii rëccute amul waaw amuloo fi ngay rëccee du kenn ku lay mën a bañ a yóbbu fa yàlla amuloo dara la lay taxa bañ a téere ci gaalu dee moo tax ngay wax la ngay wax nii fa asaddaka masaraxe wa akun min ma bokk ci way rafetal ni yàlla ne walla yu aqira allahu nafsan isa jaa ajaluha deeti yàlla mu di yiixi bépp ba bakken ba appam jot ndax yàlla mooy wallahu xabirum bi ma taamaluun yàlla mooy buur bu supervisé bépp bakken la nga nekk di dund ak la nga weesul ak la ngay waaj a dund bu la yàlla mayee waxtu su néew woowu nga koy ñaan dangay dellu ci kàccoor ba nga nekkoon rek ba tax na yàlla nee na xam naa xam naa waaw ah, jaru ko jaru ko dig bi jeex na heure bi jeex na temps bi jeex na waaw ah, bu dee match football la dañ naan amul taamoor mort amul prolongation quatre-vingt-dix minutes bi jeex na bu dee prolongation la ñu ne cent vingt minutes bi jeex na bu dee tiro bi la ñu ne tiro bi bi jeex na vainqueur bi yàllaa ko moom gañe na néew bi gañe na doomu aadama bi match bi tas na yaa ngi def intiqaal waaw yaa ngi jógee ko àddina di toxu di dem alaxira kon avertissement yi ni mel dañoo fees dell ci biir téere bi boroom xam-xamu téere alxuraan yi ñu di ko waxtaanee ci ay béréb yu fasante ko kon yow miy may nopp lañ lay wax ci alxuraan ak njàngale yonent bi na nga géem a appliquer sa kemtalay leneen la nga tële yàlla mën na la kaa yombalal su ko defee ñu doyloo aaya bi ci jamono yi génne azaka ya toll ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a jëkkatee jotaay bi ñu war a joxe xibaar ñu ngi ni taxaw ñu fas yéene leen jibbal béréb bi nasalullaha jalla wa ala an yajcalana min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahuma ya rabbi aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha